banu bal lanu juumin bi diw saful weer sëriñ fàddilu mooy weer wi leen di jox leer hmm. alil vaadilu misulul fala taxiisu himaaran bi jawaajin fasaara iisu na ngeen seere ne fekk jàngu leen si yimba sëriñ fàddilu lay def borom tuuba sëriñ fàddilu laa jallu la neex laaj ku seex bamba di baayam lu ka neex laaj sëriñ fàttiloo yaa njël ku la neex daaj ku seex bamba di baayam dafay xaay ngaaj bu lislaam defoonuk pal dangay door xaaj hmm. ni mbàkkee fi mu soobee fi daa maas laaj falil falil falil falil